kontaan bu baax a baax a baax si tey li ngeen di def parce que je pense que ni FEDES jigéen ñu bari nekk au niveau national war nañ ci inspiré te man jàpp naa ne tey moo fi jógee dinaa wax jigéenu Thiès yi ñu ñëw jàng fi si pour jël les meilleures pratiques def fi benchmark je pense que ni su boobaa euh, waa Thiès dinañ mën a inspiré wu ci yéen ni naka la ñuy formaliser mais également autonomiser les femmes. parce que jigéen moom wax nañ ko ku ko jàppale jàppale nga toute une famille. ku ma xam sama sama délégation bi ñii sama gannaaw xam na ni man dama am penchant ci jigéen moo tax ku ma ci mbiru jigéen rek dama ciy sawar te it ah, séance tenante laay yëkkati man sama naa gën a mëne damay def action ba pare après ma doog a wax c'est le début du commencement mais il y a une surprise lay dans le cadre d'un partenariat durable. donc de les accompagner à travers cette partenariat nous nga xamante ni ñoo leen accompagner avec euh, AIBD vraiment nouer un partenariat pour vous accompagner par des matériels des équipements Nous boobaa renforcer cette euh, association de la communauté euh, nous sommes la relais président Macky Sall. كخول أي دخلنا خم نبيهم دفع أم يأكل كلاو أم يأكل شيء جلسة تلو الوالد لقى وانا وارك موسى نبينا شو يعني خمن تني ممكن ده نم ينك عندو مودين كن ل ل ل ري ري بس كنك نسا يرحب نسا نكال دولنا ما خمن لين يوم أمن الخارج تني أمن الدم دم بي أمن الانعشمان أمن الكمبيتاس بودرولنا تلو الوالد بب بب ده ما يدل على سيرنا جلسة wax leen ni bu leen tay bu leen bàyyi bu leen kenn découragé parce que le Sénégal est sur la bonne voie la bonne voie du développement te loolu lépp nag ndaw ñi moo tax président du ko def parce que président ay waxam fu mu toll danaan euh, maa ngi liggéey pour les générations futures génération future mooy ñun ñii parce que suba dafay dem ñun ñoo fi war a taxaw am suñu fulla am suñu fayda continuer li nga xamante ni moom la fi def parce que le bilan euh, euh, il n'est pas à discuter. C'est un bilan appréciable, visible, mais également ñëpp ñi nga xamante ne tey war nañ ci mën nañ ci teg seen bët loxo yu une jeunesse consciente une jeunesse sûre une jeunesse qui a une am nañ ay ambition am nañ vision pour continuer l'émergence du Sénégal l'émergence du Sénégal nag président dénk na ko jël leen ngay jox ko suñu premier ministre Amadou donc nous avons yéen lañ ciy xaar comme li may li ma wax sànq bala nga naan naam nefa fa lii ñu leen di defal dañ ñoo dégg te bëgg nañ mu continuer continuer mooy liggéey bi nga xamante ni Sénégal da ko entamé ñu bañ a créer rupture donc il nous faut la continuité des projets de l'urgence et continuer ces projets c'est élire notre candidat Amadou Ba